passé nañ ko yi nga xam ne day produire li nga xam mooy wàllum pétrole ci àdduna bi yëpp ba tax na kat loolee nouvelle boo xam ne dafa wasaarew ci àdduna bi yëpp nonte de bi nga xam ne kat dëkk bii dëkk bi dara nga am sax nekkul dëkk bu nga xam ne wàllum industrie fu la gën a fekk baax sore na ko lool Sénégal nag nekk na dëkk boo xam ne dafa sous-développé état bi nga xam ne moom la may gi toll loolee sax dafa gën a néew néew doole boo xam ne sax li nga xam ne kat moom la ciy ruusee daanaka sax jarñu dara wàllum industrialisation bi nga xam ne moo ñeel ci tissu économique bi ma ngay law nanka ndànk waaye gis na ne kat dafa woyof toll maanaam ci tënk Sénégal ci boppam dugg na ci wàllum transformation industrielle ci li nga xam ne mooy mbay mi ak li nga xam ne mooy wàllum koom gi rawatina ci wàllum technologie Sénégal day jéggaani li nga xam ne mooy ressource minière ak la nga xam ne tamit mooy lee nga xam moom la ñuy bayee lépp mu ngi koy jëlee tugal pétrole ak gaz nag loolee mën na gën a sax nooyaay gi nga xam ne kat la ñu nekk waaye tamit naka lañ mën a jegee ci nga xam ne mooy statut dëkk bu nga xam ne ci wàllum pétrole ak gaz ci nekk lool nekk développé la ci dëkk boo nga xam ne kat war na nekk ci wàllum industrie koo xam ne kenn du ko daal di jam baaraam njiiti réew mi di Bassirou Diomaye Faye ci boppam contrat yi nga xam ne moo lié Sénégal ak i partenaire stratégie yi nga ñoo exploité wàllum kat ñoo war a indi ay tontu yu leer waaye tam ak li nga xam ne mooy nature contrat yi nga xam ne moo lëkkale partenaire rek Sénégal waaye tam loolu lu am solo la te war nañ koo gën mën a càmbaraata naam sax ressources yi nga xam ne moo nekk fii ci sunum réew askan wee ko moom loolee kat la kayit yi wax waaye ci Sénégal gi la nekk waaye exploitation ressources nationales yi nga xam ne tamit moo ci ne ak daal koy jaay rawatina ci wàllum pétrole ak gaz loolee ci ay logique économique yoo xam ne ak intere intérêt la daal sukkandiku kon ñi nga xam ñooy ay ponkali entreprise yi nga xam ne rawatina ci wàllum États-Unis nga xam ñoo gën a ëpp doole lool ak dogal yi nga xam ne fa lay tukkee ci gouvernement yi jàll gu Sénégal nar a jàll ci nekk dëkk industriel tukkee ci dëkk bu nga xam ne tamit day daal di laal wàllum pétrole loolee kat mënees na tee daal dut baaraam waaye tam bi ci ay contrat yoo xam ne war na xool ni kat Sénégal du ci ci wàllum waaye xool na ci ay intérêt kon tam dina métti bu fekkee ne mën nañu gëm ne exploitation pétrole ak gaz bi dana nekk tamit ci wàllum koom gi naam waaye la ci ruusee ci koppar war na fexe kat ba askanu gën koo yëg maanaam ci nga xam ñoo di lu ndax pouvoir bii fi ne ci pouvoir politique mi ngi envisager naam ci xool ndax mën na nekk daal di càmbaraat contrat yi kon impératif la ci Sénégal nag daal di gën a nekkaat dëkk bu nga xam dana naat lool ci wàllum industrie bu ko mooy rek pétrole moom dana gën a transformé lii nga xam ne kat mooy sous développement bi ñu nekkee ci loo xam ne kat tegewul ci yon ak ñàkk a tolloole ci nga xam mooy askan wi.